ko ba pare nekk ñoo xam ne li ñu am mooy xol bu rafet moo ëpp foofu doole macha allah. maam Sidi Diop de jaan la mu ndaw a ndaw baa ngi si biir dina la laxasu ba damm sa tànk ndax yëg nga lool kookoy maam di Diop maa la ko wax man doomam Aïcha mi ngi noonu ñu dugg si madame Cissé mi waxtaanee les bienfaits de l'aubergine il est toujours important de xam aliments yi ñuy utiliser yan jeexital lay am ci suñu yaram. nga asma fiñ ñu toll nii ndawal dafa cher ba ci jën sax dafa cher. ba tax na ferñeent bi ñu waroon am suñu yaram yëpp dafay faral di manqué nañu mhm. delluwaat ci li nga xamante ne ñun bu ñu amee jënd bu ñu amul jënd muy légume ak fruit buñ koy fàtte moo tax saa su nekk ci astuce ñu leen koy indil tey nag dañoo ñëw rek dugg ci marché bi tànn fa benn légume bi nga xamante ne euh, saay bu ñuy togg ceeb duñ ko fàtte benn yoon ndax gis nañ ne mu daf koy safal ba pare di ko jox gu rawatina nag ferñeent yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir moom mooy aubergine jaxato tey moom la indi fii ci plateau bi fas yéene koo waxtaanee. Batanse voilà Batanse parce que je me disais jaxato alors donc c'est aubergine. non non Batanse voilà Batanse. moo nga xamante ne. moo ñu moo moof. moo moof merci très bon pour le après une bonne alimentation après le sport. waaw. ñu ñëw ci nga ne jaxato. non Batanse mais on dirait que les mariées plus elles se marient plus elles sont déconcentrées muy man di yow. ba tey fii Idrissa Seck dinaa Idrissa Diop kenn xamul lu ma wax la. ba maanaam daal ni ñu ko mënee. xuluñu mooy xuluñu. mooy xuluñu. Aïcha. Barthélémy Seye Aïcha on le ah on le lui aubergine nga ah wax aubergine. Ah, ma. <laughs> aubergine mooy Barthélémy Seye. <laughs> yow rek yaa may réeral bàyyi ma aubergine voilà mi ngi noonu batanse comme ni ko coach Moussa waxee duñu ko fàtte benn yoon ndaxte ceebu jot bu ko amul duñ ko lekk mama am na ñoo xamante ne nag ñoom dañ koy njëkkante ci bool bi xamuñu peut-être lan ban njëriñ moom moo nekk ci biir moo tax tey nag dañ leen indi li nga xamante ne moom mooy aubergine fas yéene leen wax li nekk ci biir ñu déglu nga xamante ni Binta defaral ni ko defaral nañu ko ñu dellu siwaat gëstub tey bi nag dañ koy jëmale ci li nga xamante ne moo di batanse ñu gën ko xam ci aubergine ci réewu tubaab yi batanse nag mi ngi fekk baax fële ca diwaanu Inde law ci Europe waaye nag tas ci àddina bi yépp bu ñu sukkandikoo ci ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàll bi variété yi dañoo bëri lool te wute mën nañ ci lim baax bataan durga violette la japonaise batangse nag mu ngi peser lu toll ci deux cent vingt cinq grammes batangse am na ay fibres am vitamine B am magnésium am cuivre waaye am itam lu am solo ci doomu aadama moo di ndox. su ñu ñëwee ci wopp yi nga xamante ne batangse mën na ci dara mën nañ ci lim constipation ñu gën ko xam ci seere maladie cardiovasculaire. waaye itam ci ñi nga xamante ne duñu bëgg a wala jamono ji fekk ñuy régime baax na itam ci képp ki nga xamante ne yaa ngi daw woppu wopp cancer se daal lu baax la ci suñu wér gu mu Moussa wax na ci sanitairement lu am solo mais dañuy delluwaat léegi madame Cissé rek moom mu gën a ñëw ak ñu ci ay points comme voilà comme ni nga ko déggee batante nag nekk na légume bi nga xamante ne euh, ñun Sénégal dañ koo bëgg loolu waaye tamit ñi nga xamante ne ñooy européens yi ñoom itamit bëgg nañ ko ndax seen ay plat yu ci bëri ñoom dañ koy consommer mais ñun nag gis nañ ne batante pour ñu lekk ko dañuy foog ne ci ceebu jën rek lañ ko mën a lekk waaw wala ci yenn plat yi rek lañ ko mën a lekk alors que batante mën nañ ko utiliser euh, ci yeneen façon yeneen façon toggin nañ ko mën nañ ko ci utiliser ndax ñun pour ñun ceebu jën bi rek jël ko rek baxal ko rek ba mu ñor daal di ko yàkkaale alors que batante mën nga ko frire mën nga ko saaf mën nga koo def ci four bi mu nga koy dagg en lamelle def ko ci four bi wis ci tuuti huile d'olive daal di ci def tuuti sel ak li nga xamante ne mooy quelque assaisonnement rek mu daal di koy jox gu nga def ko nga boole ko sa sa accompagnement mu nekk accompagnement bu neex waaye tamit bu ñu fàttee li nga xamante ne moom moom moo ñu moom moo ñu gunge euh, plat yi moom mooy gunge yenn aliments yi ndaxte légumes yi dañu nekk li nga xamante ne boo koy boo boo koy lekk dafa am ci lu bëri mu ngi koy def ci sa yaram te doo ci bàyyi xel donc ñun il faut que ñuy fàttaliku légumes yi nga xamante ne moom la ñu am aussi jigéen ñi ñuy am yeneen astuce di am yeneen fem di bëri bagage bu nañuy xool yeneen façon plat parfois ñu koy copier ndaxte bu ñu gisee dañuy gis ne chef yu ci bëri dañuy am benn façon boo xamante ne moom la toggee euh, aubergine bi boo xamante ne ute na ak ñun naka lañ koy lekk d'habitude donc mu nekk légume bi nga xam ne neex na lool te bëri na ferñeent bokk na ci plat yi nga xamante ne aussi dañ koy faral di ko ci gis muy ratatouille donc dañuy jël légumes yu bëri rek daal di koy togg donc mu nekk plat bi nga xamante ne dafa neex ba pare euh, dafa riche gis nañ ne batañse aussi bu koy conserver dañ koy conserver au frais pour que mu bañ a a bokk na ci euh, pot bi donc danga koy raxas ba mu set rek kenn du ko xolli légume nag taamu nañ ci encore une fois ñuy fàttali asma bu ñu jógee marché nañuy def ndox du wis tuuti def deux gouttes eau de javel comme ça légumes yi mën a set jarul parfois ñu koy xolli ndaxte gis nañ ne bii ni bokk ci muy aubergine doo ko xolli da ngay daal di dindi di nga xamante ne mooy lu vert li moom ngay dagg bopp bi rek ngay dagg boo paree nga daal di koy jël daal di koy consommé voilà mi ngi noonu li ci nekk yëpp dafa bëri ba tax na euh, sànq yaa ko ci junj nga ne lan ak lan lay faj. bopp bi sax boo ko daggee noonu. dañ mhm. koy def sunguf ba mu wow. Mhm. comme ni nga koy lekkee noonu dafa gaaw ci constipation te day dem xeex ak microbe yi pour tout ce qui est infection pour tout ay calcul maanaam xeer yi nga xam ne day nekk ci. rein di ko téye mhm. da leen écrasé ma ci nuyuwaale bu baax suma yaay maam Daba Sarr bu sunu yaay soxna Sophie si ibnu Serigne bint Serigne Babacar Sy suñu yaay maam Daba Sarr foofu nekkoon suñu ci soxna sunu papa góor lay ñu koy ñaanal moo ñu njëkk jox palaawu aubergine def ko euh, euh, def ko ci farine ak ay sucre ak ay nen. Mhm. macha allah firit ko boole ko ay accompagnant ñu koy nuyu bu baax yaay booy yal na la yàlla dolli wér ak jàmm ak salaam. amiin amiin yaa rabbi il paraîtrait-il que c'était mhm. le légume préféré du prophète. Mohamed mooy li ma la wax ci divinité parce que fa muy dem di fa nekk di fa toog lenn rek moo ko mën a dindi si nit. Mhm. mooy nga mooy. tànk yaa ngi koy lekk boo moyul du génn dalay topp ba àjjana. ndeysaan macha allah mi ngi noonu li ci nekk kon ay mbuute ci nekk de aspa ñu ngi ñu ngi gën a découvrir yi nga xamante ne moom moo moom mooy ngëneelu li nga xam ne moom mooy aubergine bu ñu koy fàttee euh, sànq comme ni ma ko waxee bu koy consommer rek nañ koy consommer différemment parce que gis nañ ne ñun bu ko lekk ci ceebu jënd duñ koy faral di alors que war nañ ko mën a jënd euh, fu ñu mënti toll mais aussi comme sànq ni ma ko waxee dafa baax ci euh, li nga xamante ne moom mooy feebaru biir comme ni ko coach waxee bu fekkee da nga constipé comme sànq ni nga ko ci waxee moom baax tax na nga koy faral di ko lekk mais aussi pour ñi nga xam dañuy bëgg a garder la ligne dañuy bëgg a maigrir fu ñu mënti toll dañuy bëgg seen yaram di di di ñu maintenir seen taille seen yaram di nice bu fekkente ne dañoo am taille bu rafet ñu bëgg koo maintenir bëgguñu biir bu rëy wala yaram boo xamante ne dafay dafay ëpp donc juste mesure rek la ñuy daal di wut donc ñooñu dañuy leen di conseiller ñu jël li nga xamante ne moom mooy aubergine bi di ko dagg boo ko daggee nga def ko ci bool def ci ndox di naan un demi litre par jour boo koy naan da gis que ne dafay favoriser perte de poids donc euh, bokk na ci li nga xamante baax na ci li taaral li taaral jigéen mais aussi góor ñi aussi mën nañ koy naan bu fekkente dañuy am excès de poids ni nga yi na comme ni nga ko déggee sànq am na ci boo xamante ne moom mooy bu violette bi la ñu xam moom di gën a am na bu verte am na bu orange am na bu weex donc yooyu ci yeneen dëkk yi a li nga xamante moom mooy aubergine donc du fi manqué euh, amuñu prétexte pour dem di ko wuti ji donc bu ñuy dem rek nañu taamu légumes yi nga xamante ne moom moo gën ci ñun surtout ñu xam naka lañ koy euh, naka lañ koy consommer mais bii moom kenn du ko lekk cru boo koy lekk danga koy xaw a togg tuuti cuisson bi moom du yàgg bu fekkee ci fuur la wala da nga koy lakk du yàgg moom bu defee cinq minutes rek dix minutes maximum da ngay gis ne ñor na nga daal di koy consommer boole kook sa ndawal wala sa jën bu la ci neex Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour les l'astuce et, et les biens et les vertus de du de l'aubergine. C'est important ñu bàyyi ci xel bu baax a baax euh, ci et puis ñii dem di togg xam ngeen li neex si subatel mooy que avant ngay dem marché lay jeex kon nag dem leen inspirez-vous peut-être pour un dîner ah bu ko defee ngeen ngeen defar ko lekk ko tester ah. vous pouvez mën nañ ko def farci sax. voilà exemple bu ko jëlee nga dagg tige bi nga wut benn kii creuser ko ba ñam bi yëpp jeex génn nga farci def ko ci togg ko.